ku mën ak kuy jéem bokkul roy du nur ak pur kii mooy Serigne Babacar Diop borom turu yàlla yi borom ijaaba bi te mooy borom cuuraay yi moo leen indil cuuraay bu ñuy wax fatul kubra pour ñi bëgg a siiw mbaa ubbeeku mbaa wërsëg ju bëri gaawal uti cuuraay fatul kubra waaye yemul foofu ak yeneen cuuraay yoo xam ni day dàq ak jigéen yuy wër jëkkër am na tamit ay cuuraay pour góor bi masturbé wu te bëgg a tàggale kook moom mbaa jigéen ju bëgg a am doom te mënu koo am gaawal seeti Serigne Babacar Diop am na ay càngat yu am solo ci mbirum ubbeeku gaaw a seeti Serigne Babacar Diop. bu ñu waxee impuissance mooy góor bu tele mbaa góor bu am infection ay garabam am na fa wàllum hémorroïde yi tamit Serigne baabakat Diop da koy faj képp ku fa bëgg a dem jëlal adresse bi rond-point Case ba cité Amo 2 nga laajte kër chef de quartier wala nga def 77 864 25 89 77 755 24 24